élégante. On retrouve tout de suite waa Rahma Damba Fitness avec notre coach Fama qui nous rejoint tout de suite pour nous proposer quelques exercices. Coach. Bonjour coachette. Ah ouais coachette. Coachette, coachette. Ah, le câlin. Namoon naa la. C'est vrai que man dañu bëgg namoon naa la. Xam nga rey xale. Gis naa. Hello. Namoon na namoon na gars yi. Rahma. Salut, ça va? Jaajëf. Allo. Ça va? Ça va. Grand def. Kon tey yéen lañ fas yéene assassiné. yeneen combat yi. doo ci jàpp man nii. Ah. bàjj bi du ma ko def. voilà ab demi na dëgërul. ayca voilà juste femme sox un peu le temps que ñu branché waatal la sa micro bu ko defee nga ñëw léegi nii nga defaral ñu euh, exercice yi en direct euh, ci télévision Futur Média yéen tamit chez vous mën geen a euh, reprendre yi nga xamee ni mu ngi ñu koy proposé même au bureau parce que am na ñoo xamee ni am nañu fa ay télé yu ndaw di làqatu di seetaan quoi aussi bare na de. <laughs> c'est parti. euh, on n'aura pas le temps d'attendre même si le micro ne fonctionne pas kay dem directement ci sport bi après euh, nga toog ci micro bi nga expliquer ñu voilà c'est parti. allez Alfi. voilà je te change directement et en direct ton micro bàyyi ma dugal sama non ton mari ne regarde pas oh il regarde pas mais ton mari ne regarde pas je suis censuré bàyyi ma dugalal ko yow sa micro dugg na bu baax ma xool yow da ngaa ñàkk fayda ma doon ma micro ndax dugg bàyyi leen ma xool seen micro yi ma xool seen micro bàyyi leen ma xool seen na ma dugg na <laughs> allez micro yi ci suuf yére yi la ñu koy jaarale ñeena technicien bi leen di rafal seen micro toog il s'appelle bien servi tous les matins voilà c'est bon C'est oh. parti maintenant. Allez. C'est bon maintenant? On va d'abord s'échauffer. Échauffer les muscles. Il fait très froid. Allez, on commence. On sautille.

Original là. mettre. Ceux qui sont à la maison, déplacez-vous. Allez. Allez, talons maintenant. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Très bien. I got talent. What's my jingle? What's my jingle? 17, 18, 19, bagada. What's my jingle? Allez. 17, 18, 19, bagada. What's my jingle? Balance-moi les bras. 17, 18, 19, bagada. What's my jingle? Allez. 17, 18, 19, bagada. I'm feeling like a window. Shake my body, no, no, no. Kumba, let's go, là. Ah, necessary. Caro carry new stories. Ah, new stories. Caro they make my head the turn. Caro they make me want to lose them. Caro they make my head the turn. Caro they make my head the scatter. Caro your body necessary. Ah, necessary. Caro carry new stories. Voilà, très bien. Ah, Amène Caro, eh, eh, bien, Caro, ça va chauffer maintenant, regardez bien. Caro, amour, Caro, Olohi, Olohi, Caro, Okari, eh, Caro, Kari, Loro, Caro, Milodi, une, deux, trois, Milodi, ah, Caro, c'est toi, la passe moto, Caro, c'est toi, la passe Ferrari, Caro, c'est give me every morning, Caro, c'est toi, je know the tire, Caro, c'est toi, la passe Caro they make me feel the lazy. Caro they make my head bang. Caro they make me want to crazy. Sometimes we looking for Caro. Eva, show me Caro. Eva, see Caro. Eva, where are you Caro? Eva, I'm looking for Caro. Eva, show me Caro. Eva, see Caro. Eva, where are you Caro? Eva, plenty, plenty. Caro sweet, no get any meat. It's a little

adorable Mado namoon nañ la <laughs> trop bien mes champions ah. merci Fama. Fatia dem na step ba ñàkk nii. tu as vu ah dama sonn. je suis fatigué tu es en pleine forme. ayca tey looy joxe comme conseil. tey euh, tey damay wax d'abord sama champion yi may indi. waaw ay champion d'Afrique laa indi. waaw parce que kii euh, c'est un coureur de 400. Uh-huh. et moom ak kase aan ñoo doon defante nii. d'accord alors il faut ngeen téye ko Sénégal. Uh-huh. parce que instant yi mi ngi euh, France il vit en ah, France. d'accord lui Mounirou Dembélé kii tam dawkatu 400 la. d'accord alors bu yeboo ngeen surveiller leen de près. Uh-huh. balaa ñuy rëcc. mais euh, voilà salut les champions. champion d'Afrique. et on touche ta main nuyu champion nuyu nga ay alors euh, conseil du jour bi tey. Mm-hmm. muscle yi lay wax. parce que muscle yi ak seddaay bi il faut ngeen échauffer wu correctement. réveiller leen muscle yi ba pare ngeen di door a def yenn pratique yi ngeen war a def. sport bu mu mënti doon nag. réveiller leen muscle yi ba pare. muscle mooy nit mooy moom mooy yëpp. mooy fonctionner loolu lépp. parce que cœur bi tam muscle la. alors lépp lu ngeen di def rek yee leen ko ba pare tàngat leen ko ba pare. door a def benn effort bu ngeen mënti def. pour cela aussi. athlètes yi ngeen di gis nii yëpp dañuy ñëw salle pour def musculation. Mhm. sport bu mu mënti doon. da ngeen war a def musculation. Mhm, mhm. alors ñi nekk si mbedd meeg fu mu mënti doon. Mhm. ñëwaat leen si saali yi. ñu yee leen tàggat leen ci musculation bi. loolu laa mën a merci beaucoup Fama je rappelle que mën nañ la fekk Rahma Damba fitness et puis ñu ngi remercier euh, suñu ñaari champion yooyu noonu ñu ngi représenté bu baax waxuma rek Sénégal mais Afrique bi yëpp c'est vrai que muscle dañ koy yee ah. moom bu yeewul euh, defe naa du mën a def euh, liggéeyam comme il faut c'est ça loolu moo nekkoon conseil yu. Fama pourquoi tu me regardes. la may xoolee